alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. asalaamaaleykum téléspectateurs yi Kossy TV ñu ngi ànd ak yéen ci fuglu gàmm gi macha allah. الله تعالى وبركاته كناو بنيو سانتي يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم تلفزيون ناسيونال ام بكيك ماك اك بانير دي لين اندي المولود النبي الكريم مو ام تي كاولا نياتن بوكو ما خام سي واجي لي باوا الهي دايما نياف يالنا يالا يوك ليرام ndax leppam daf ko joxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu jeex tak moko fa jëk daan def ci medina baye booba mbaar mu ndaw la woon moo xam ni dafa daan wër ci nit daawul ma fukk wala fukk ak ñaar ñu xame ci ay ñi dendoon ak moom ay muxaddam Serigne Aliou Cissé di bàyyu El Hadji Assane Cissé mi fa nekk tey di ilimaanu jàkku Medina Baye El Hadji Mamadou Thiam ak El Hadji Thierno Dem ak yeneen muxaddam bés boobu nag naka jekk moo see tellu si El Hadji Ibrahima Niass daf koy màggal ndax juddi yonente bi mooy bés bi gën a rëy ci alquranal karim ndax keroog wax nañu ni nit ba daawul wax ak mbokkam dana wax ak mbokkam ñi daawul juboo daañu fexe ba juboo yàlla ci boppam am na ci mbégte gu mag ak bànneex ndax dana yonente bi sallallahu alayhi ñu nga nag biir Kaolack ndax bés boobu nekk na bés bu mag boo xam ni mën naa ni senegaal ak Afrique wala ci monde bi sax ci gën gàttal fu ci nekk ndaw jóge na fa ñooñu ngeen gis nag mooy suñu mbokk yi jóge ci yeneen région yi ñu jóge Dakar Thiès Kaolack ñeneen ñi jàll ci beneen wàll nga jóge booru Casamance ñooñu nag suñu mbokk ñëmuñ ko yi nga xam ni ñoo jóge ci île yi ndax bàyyi ku ci nekk amoon na fay taalibe ñoom waa Diofior ñoo joor yu ndax ñoom ngeen gis noonu ñuy dem ci bés bi nga xam ni seeni waajur ñoo fa dem di fekk El Ibrahima Niass wàcc seen gaal noonu nag dugg seen oto fas yéene jublu Medina Baye mu nekk liggéey boo xam ne rafet na tabar fakal ki nga xam ni moo toog ci place ba léegi El Hadji Abdoulaye Ibrahima Niass moom itam yàlla na ko yàlla yàggal ndaxte lépp loo xam ni waajuram moom la defoon muy fukk yokk na ko muy ñaar fukk ndax alquran al karim mooy wétlu kaayam moom it fa mu tegoon tànkam rek la ko teg ñu nga nag Medina bàyyi sora yooyu ngeen gis mooy jàkk jooju nga xam ni moom ci wàllu boppam moo ko rëddoon ne nañ ko fa def gis ngeen nag mbedd mi nu mu xate ndax fu ci nekk nit jóge na fa ñëw waaye nag am na lu Baye digle woon nee na ku dëkk suufu Medina Baye gi lépp loo xam ne mooy yar ak teggin nañ ko def ndax juddu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni ci ñun lool ba moo taxit foofu nag fa la ñu dem suñu waajur bu baaxu El Hadji Ibrahima Niass yal na yàlla yokk leeram ñu jóge Mauritanie ngeen gis leen noonu Nigéria ñu jóge ay Atlanta ca New York Los Angeles dëkk ba ma jëm daa sori Medina laa jëm gàmmu je ay koy ànd ak ma ñëw leen dem ci bàyyi ndax kat mooy solution bi ma ne jug leen ñëw ci baay ndax kan muy solution bi Seydi Barhama Seydi Barhama Seydi Barhama mooy solution ndax mooy xam li yàlla ah satu Ibou Niang moo lay wéy yaa dugal ci suñu xol yi laa ilaaha illallah dëkk bu ma jëm daa sori am Medina laay dem gàmmu ji ay kuy ànd ak ñun yow jërëjëf yéenay liggéey faydu baay bi si ji ñu ngi leen di gërëm